xam nga ma la wax parce que tey jii am na si yoo xam man am na yoo xam man am na fi temps yëpp passé am na man lu ma dal fii man ma toog fii accusé mu sell mii ak reetaanam bi nga xam ne euh, mus musta neex hmm. mais am na ñu ma woo ci moom ñu ko jege ñu ma woo hmm. ne ma ñun joxuñu yooyu instruction yëguñu ko du suñu hmm. te après alors à de charge hein mais euh, def nañ ñu euh, li ci war. Hmm. accéléré nañu sax dossier ba. waaw. ndax dafa am ñuy def excès de zèle. loolu parce que. tey jii pour plaire parce que tey. Lat Diop mii nga xam ne ñëpp xam nañu ne moo xam mu sell bi ñaata passe d'armes lañ fi am. am nañ fi ay passe d'armes yu bari. Hmm. soo ko téye aéroport ndam la. bo voilà. xëy na xaar. coûte bi ba ba pare. ba pare moom promotion. ñoom ñu ko téye dinañ góorgóorlu ba yéegal information ba. ndax ndax ndax ndax ni ko lat xam nga lat am na yoo xam ne du ko mën a wax. ndax comme de cas la. Mm-hmm. waaye ma ko man. tey jii la tax waa waaje ko téye la tax immédiatement ñu ñaan na ko bàyyi nga dem te te xool ba mu ko téyee ña ña ko téye góor nañ fexe nañu ba seen officine da da da yàq der yeek da da fen yi tasaare ko jot ci. te tasaare ko fépp partout. Mm-hmm. xam nga loolu ci utoon. Hmm. balaa 8h30. balaa 8h30 la tañ këram ay 6h et hmm. pour koo xam ne amoon nga vol hmm. dafa teg tàng commencé formalité rek ñu jagat jagate xoolal ma humiliation ba ñu ko bëggoon mais xam nga lat góor yàlla la. du toog foofu di maye boppam de du ko def ñu jagat jagatee ko dugal ko waaye tey ka def loolu xam na lat jóob. lat moo leen xam ne ñoo xam xam nañ lat jóob. xam nañ ne lat jóob nii. mu sell mi am na ak moom raak. Hmm. ñu ne xaar comme mu sell mi moo téye réew mi ñoom ña ngay ut promotion ak poste te xam naa bu yëgee ne téye nañ ko lajj téyel nañ ko lajjoo mii xol ba dana sedd dana gunnaandaat ba tem ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu buruxul ñu beneen beneen poste. Hmm. daal di góorgóorlu na ba siiwal ko ci seen fenkat yee. Hmm. yéegale information ba mais noonu tamit.

ak man mii ku ne am nga droit kii a ko génneel raga jeeru mais moom tamit xam nga xam nga xam nga am jàll ñu nitu dara <laughs> buruxlu maa bi waaw léegi léegi léegi moom tëj na buntu buruxlu yi ah bon waaw tëj na ko nag mais mais foofu na kontaan naa ci non foofu dama koy féliciter man tam dama koy féliciter man wax naa honnêtement waa Pastef leen buntu ragajeerukat yi yi ak moom man tamit foofu laa ànd ak seen boy ak seen influenceurs yi mooy ñoom ñoo gagné 54 pour cent donc ñoom ñi xës ba rëcc ñëw trahiroon dem fekk ji leen. ñu recycler leen système bi nañ leen tëy. ñooñu seen gàcce la ak alliés opportunistes yi porte parole yi. nañ leen tëy te ñooñu sax man damaa kontaan ci li ñu leen di liggéeyloo alliés opportunistes mooy mooy dem leen dem leen tontul. jox ma sa taas ma fan la xam ba ba gis nga faux projet. waaw loo woon faux projet. intellectuel bu toll noonu moom ñu yóbbu ko ne ko faux projet. non keroog su ma nee Abu boobu ñu ngi ko doon corriger ci opposition kii nga opposition wu xaw ma république nga dañ laa yónni bi ko Ousmane waxee loolu mu koy tontu bay jooy tëngéej pour humilier ko daf ko ne demal télé ñu ñëw sauvage waa toroxal ko génnee faux projet boo xam ne moom concerné bi nee na pareegul mu génnee yow ministre de l' a supérieur nga génnee faux projet taxaw wane ko brandir ko ci livre léegi é lañ jox loolu pour ñuy ñuy doxal moom côté boobu moom parce que ful ñu am parce que gis naa Seydou Diouf wax leen assemblée nationale. waaw leen yéen a gagné gouverner. dëgg la de man loolu parce que dañu xeex. waaw il faut muy ñoom daaw de Guèye ak yi ci nekk ñëpp lañu war a jox. parce que ñoom nee nañ defuñu appel candidature yi à part rupture clientélisme moo am. booy dem jël poste yi. Mm. parce que amul rupture dañuy politique. aussi simple que ça. mais léegi allié yi ñëw dernière minute def seen calcul def seen sondage. opportuniste yooyu ñoom it bi ñu seen kii jox nañ ko yóbbu nañ ko ci ndox mi mu plongé wu fa. kii yóbbu ko éducation nationale Guirassy. xale bi moo bon plong mu tax fa doon fa a taxu croix. <laughs> église bi <laughs> xale bi bëgguma ko. Ami Diallo je te déteste. non xam nga non bëgguma la. noonu lañ def côté boobu bi ñu yegsee les ministères lañ leen jox. kese ba pare ñemale leen ñemale leen. ba xoolal joxuñu leen nag benn ministère bu baax. benn ministère direction yu baax yi ñu jël teg. ñu teg fu xaalis di génnee. xaalis di génnee seen yaay lañ ko jox ay <laughs> dëmbuñ. ak pétrole beeg yooyu. yu baax yooyu la ñuy jël foofu la ñu jël. Habib si seen xarit dëgg la ñu ne ko demal noppalu. waaw PCA xaw ma PCA tëdd noppal moom dafa doon bàyyi bu xeexee ba ngoon mu gont naan xale yi ndax yëngal nañu ñu ne ko PCA euh, Senelec dafa neex am PCA dafa neex parce kii Khalifa Dia Khalifa Dia meeru hmm. dëkk boobu sérif mës na toog di ko wax ak neex hmm. muy wax naan ma defoon directeur parce man PCA hmm. sama quota nangam ñu ne Habib Sy demal foofu dallu parce que Habib Sy moom a rakkam rek bañ na ko ba bi ñuy def liste te moo ne te moo ne Abdou xam abi min bi ñuy defar abi abi dafa am problème fay fay fay courant ak ndox ñuy def suppléant eh? yi ya, ya. motax xam nga lool ke eh? andil mu andil dédé indi rakam rakam bam duggé ñu ko ci biir ci la tambalé voyager dégg nga du sax déjà légui mais abi ci dafa sonnon mais parce que mom nañ leen ci féliciter non man parce que transhumance franchement bobu mom ñom loolu war nañu ci dimbal parce que rañ bu nek bo ñi amna lo wara dindi mais transhumance mom ci seen rañ ful giñ ci am ak fayda gi parce que Cheikh Abdou sa xarit bi on a député moom it bañ nañ ko ñaari yoon waaye li ma ci neex mooy. day ñëw dugg day ñëw dugg léegi mais dafa wax lu neex. xam mm. dafa dem wolf dafa dem wolf léegi comme dañ comme dañ koo mbañ léegi mu ne xaaral ma dugg nag. Eh, xale bi ma yàqal parce que Pastef je me félicite dañoo dañoo dugal kii heureusement mi ngi atam ñu dégg Abdou Diallo bàyyi di yàq la. xale yi ñu defati ko yónnee ko ko. dañu xeex ay xale gëm seen projet gëm seen leen. dëgg la dëgg la nañu gouverner. dëgg la ku amatul appel à kii gis nga Ousmane Sonko nii sax dem front yu metti yi sax waru ko def. pourquoi moom muy nekk muy dem chaque jour. mais opportuniste yi ñëw dernière minute ci moom. amul ku ko demal. waaw mais opportuniste yi ñëw dernière minute ci moom. waaw nañu génn demal ko. mais entrepreneur seetlu nga tamit ne même même presque temps yi am na ñuy bruxlu tamit de. non mais bru démb maa ngi félicité Ablaye Cissé jàngatan démb.